ñi ngeeg euh, Abdou Sané moom mooy coordonnateur u Pastef euh, sa Ziguinchor moom benn xibaar boo xam ne tey jii génne nañ ko ci presse bi ne dafa am ay boo yu duggoon ci kër yaayu Ousmane Sonko euh, ca Ziguinchor est-ce que mën nañu nettali mbir yi nan la demee. wala bi incident yi amee aéroport bëccëg la woon. ba ñëpp ñi bi ñëpp defe ne léegi agression boo xam ne moom la Ousmane Sonko subiroon au niveau de l' aéroport jeex na.

alors noonu la gaa yi ñëwee fu ñuy bëgg commencé di attaqué rek ñu gis ni am na équipe de riposte am na sécurité bu fa nekk rek ñu lal li mu nekk ay daxante léegi ci biir daxante yooyu parenthèse gars yi dañu mun a daw nag mu am seen ci ñoom koo xam ne ponkal la dafa njool ba pare jàpp kooku moom la gars yi jot jàpp bi ñu ko jàppee indi ko kër ga daf ko genre interrogatoire pour laaj ko lu tax mu ñëw kenn moo ko fa yebal

joxe na tour bi mais man du ci dugg pour le moment mais boo demoon te Ziguinchor ku nek xam na ko parce que c'est populaire mais man personnellement dama ci prononcé parce que bon, joxe na tour bi devant tout le monde joxe na montant buñ ko jox aussi et wan na effectivement la mission consistait à venir et à brûler à raser tout manam Ousmane Sonko bu fa nekkoon il serait carrément purement simplement assassiné voilà parce que gars yi avec la volonté de tout raser et de tout détruire loolu mooy contrat boo xam ne moo leen tax a jóg ba ñu ñëw ci kër famille Ousmane Sonko alors que boobu fekkoon na Ousmane Sonko jël na avion ba ñibbi donc maire yi fa nekkoon ak rakkam yi ñoom ñoo waroon nekk les victimes parce que gars yi jaral na ñu lakk kër gi ñu toj kër gi wala ñu fusillé purement et ay onkal nit lañu et en te xoolal heure ñu choisir diggante une ak deux du matin nga xam ne heure boobu ñëppay nelaw. waaw est-ce que par rapport ak euh, attaques yi nga xam ne Pastef mi ngi koy dund ci Ziguinchor yéen yéen a ngi jël seen i waaye ñu ngi jël seen i matuwaay mais comme nekkul bagarre rangée ñun on est sur sur le qui vivre parce que lan fois contrairement lu presse bi di naan bagarre entre les de Sonko et ceux de Doudou Ka c'est pas vrai Sonko moo doon dem pour wuyu ko deuxième bi aéroport lan la.

C'est pour sa information ñun bu def meeting na renforcer sécurité parce que ñoom lolu seen liggéey la c'est pas des militant ku ko fay rek la meeting pour sécurité bu assurer meeting mais que pour service à d'autres pour encore attaquer auparavant assurer sécurité meeting doy na waar. Abdou Sané maa ngi lay sant di gërëm ma fàttali ne yow yaay coordonnateur u Pastef à Ziguinchor merci. merci maa ngi lay gërëm.